looy wax ni eh troisième woo gaskel Papa Gueye Mouma laay lay la la combat sok gaskel Papa a waaw Papa Gueye Mouma ndeysaan ceinture rouge représenté Kolda Gaskel Diamé 120 kilos tamit fi nga xam ne ndeysaan moo di Kédougou de ceinture bleue ñoom ñaar ñëpp ngeen noir lañ dem arbitre atte na leen ndeysaan Dramé bu Thiès moo leen di arbitré l'entrée de Momo Ngom ndeysaan waaw jël na tànk ba bañ na Papa Gueye Gaskel Diamé Kokel Pape Gueye troisième place 120 kilos troisième place 100 kilos waaw waaw Famouta xam ne moo di bâtiment bu moonem ndeysaan bâtiment mu ngi représenté li nga xam ne moo di Matam astafula Tamba di moyes waaw waaw eh, eh. monem famu tete ñaar 3e place wara beure mo wara beure tam 3e place eppone loko eh. ko door suuf waaw mu doon daan na ki nga xam mooy jël na premier troisième waaw waaw gaaw na de laa ilaaha illa laa takk na ko daan ko ehe eh. yàqul yàqul ehe eh. caatu sanu caatu sanu daan na Ronaldo bu wiyaay caatu sanu jël na li nga xam mooy ba doomu Koupentoum bi tur Louga Louga waaw troisième place 76 kilos Weuz Jordan Thiès moo ñu woon ginnaaw Boy Gueye bu Ndayane représenté Louga lañ jàkkaarlool eh, eh. le 14 ndeysaan mai 2023 fii ci Saint-Louis du Sénégal de Coupe Teranga jéemu ndari Bilai ci ndar yi saf nañ waaw waaw ma ne ko ceebu ndar yi saf na masala eh boy geeru ceebu na ba fa wos wos sappu jugaat Wul Jordan ak ki nga xam ne moo di Boy Gueye bu Ndayane représenté Louga waaw waaw ambiance de feu waaw waaw Momo Ngom Wol da buna kwa nyari soli Sawai dem lo kai bolo ke he he Wow, wow, Boy Gueye ngay rasu Weuz ak Boy pun bu Ndayane représenté Louga Weuz Jordan bu Mbour représenté Thiès woo Weuz loolu ngay def wóorul ate nañ leen Boy Gueye am na ada avertissement kita nanya. waaw waaw 86 kilo astafurlah 66 kilo hoyram signor hoyram e dor na ko tànk e ehe wol takana ko wol takana ko Laila, laila, ko la ilaha illallah wol jordan dan ko wol jël ehe dong burbi, nyam ñoom ñaar bokk petit kon ndeysaan woo oh, fair play Ehe, eh eh attention mbaal ju for Ehe, ndomba eh eh oho Mbaar Diouf daan na nga xam mooy Madi 66 kilos Kaffrine jël na individuel astafurla astafurla Mbaar Diouf jël na troisième place di moyen jël na troisième place moom Mbaar Diouf bu Kaffrine daan na Madi Sarr bu Kaolack troisième place open eh booy ma doon faamuta booy ma doon tëbb ko sànni sa biti dañuy ñëwaat Famouda Sam confirmé na premier troisième place am place troisième place ëppoon ëppoon Famouda booy moroon Famouda eh waaw waaw eh booy moroon daan na ko booy jël na troisième place yi. Fair diggante Toubacouta Boy Maroon. Toubacouta Boy Maroon. ñaari final ini ñooy dawa doon final 100 kilos yi ak final fili 200. waaw Fouta doon na champion du Sénégal c'est la première fois. Fouta doon na dañ fay fekk Seye Ndele ak ki nga xamante ne mooy Seye Ndama sax kilo yi ngay sax ñoom ñooy finaliste yi ñu xool qui va gagner inchallah waaw waaw hee Seye Ndele Seye Ndama Dakar, Abuja, Kaffrine yëf yaa ngi neex ñu koy dund xol yaa ngi fekk Télé Mellé ak Sayer Ngama moom Ablaye Mbodj waaw waaw mi taa nañ ama mbojeen ama kale mbojeen si Sayur dama selemele. Selemele sayur dama. Koy nuyu si toor ndeysaan. Eh sele fi leen ko sayur dama ñoom ñaar yàgg nañ ci drapeau chef de l'État xam nañ lan mooy drapeau chef de l'État am na nañ koy bëree walla si déggal loolu ndeysaan waa ku da jël na plus de cent ndeysaan daan na ki nga xam ne moo di Boy Maroon waaye daan na ba pare ndeysaan daal di yëngal bopp bi mooy la mu ñàkk la xam mooy final par équipe moo ko naqari ndeysaan Kundama Selamlarım Mühendisi Didik Devri Finali sen kiloyla Ataya Yesro Mangi Niwa Puer Jojong Sadou Café ñëw di fi bégal gaay ni ren la Thank you. Bélé Bélé jël na li nga xam ne moo di 100 kilos yi si kaw Sayer Ndama par avertissement. arbitre sifflé na eh man ko final 76 kilos góor ñaax bi mooy cinquième fois mu koy final to moo yor titre bi Babou Kaling moo yoroon 66 bi ndeysaan yegg si 76 yi. ni ma laa dama koy jël ngóor ñi day confirmer ngóor ñaax ngeebulu noir baabu kali ngeebulu ee eh, jël na jël na baabu bañ na ee eh, fàq ko mu ñëw ngóor ee eh, baabu kali ngóor ñaax mu koy mboot ee ee waaw waaw nee nañ Ngor Ñaax moo daan nee nañ Ngor Ñaax moo daan Ngor Ñaax confirmé na Ngor na laa ilaaha illallaah Ngor Ñaax cinquième fois drapeau chef de l'État nu mu fa demee noonu jam samp na ëmb eh Babacar mu ngi représenté Louga ndeysaan 66 eh, de Fatick eh, eh, fi nga xam ne moo di

daan na la eh Babacar daan na Jackson Babacar John War eh Kabou Sarr jëla sa boy ana boy John War daan na Jackson eh eh fair play